yow la ñoo wateel yow la ñoo wateel on y va mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat c'est bon c'est bon comme ça voilà voilà vous vous venez à Rufisque pour la campagne am mbégte bu baax a baax bu rëy rëy ci waa Tëngéej ni ñu ñu teertoo ci marché bi ak ci quai de pêche bi ak ci koñ yëpp yi nga xam ne def nañ ko dem nañ seeti jaaykatu soble yi ci pàkku soble yi ci yoon bi nga xam ne ñu ngi ko woowee rue Ousmane Sonko donc dugg nañ fu nekk ci Tëngéej ba fii ci quai de pêche bu Tëngéej ñu ngi gërëm di sant mobilisation patriote yu Tëngéej mobilisation coalition Diomaye président ci Tëngéej ak tertu bi nga xam ne def nañu ko bi ñu egsee nag police su Macky Sall jéem na saboté suñu campagne muy ñaareelu yoon defoon nañ ko marché HLM ñu egsi marché HLM ñu ne ñu on a reçu l'ordre que ngeen jóge fi ñu forcé ñu dem tey dañoo egsi balaay 4 heures ñu ñëw ñu jàpp suñu chauffeur yóbbu nañ ko commissariat ñu naan déet ñu saboo suñu ñeenti ruuwu oto ñu naan déet d'accord ñu ne ñu dañoo soxla autorisation pour distribuer ay flyers finalement ñeenti auto police yi dem xam ngeen loolu lu muy tekki mooy dañuy tappaas xam geen loolu lu muy tekki mooy dañuy xëble dañuy jéem a xëbal kon moo tax may lancer appel à toutes les coalitions du Sénégal à tous les candidats du Sénégal ñun ñoo am dëgg depuis bu député Yewwi Askan Wi dugalee recours conseil constitutionnel dafa suspendre la loi anticonstitutionnel bi dàq élection yi kon bu ñu tiit bu ñu ragal policiers yi dañ ñuy jéem a tiital la preuve mooy professeur Mary ñaan Niane Bara Diouf Mamay Diokou ak ñoom seen ak Assane jóob mii nga xam ne moo ñu dalal ak ak Rama Bodian dañoo egsi fii ñu ne ñu da ngeen soxla autorisation bu ngeen amulee autorisation du ngeen séddale waaye mujjantel bi mujjantel bi àndoon ngeen ak ñun gis ngeen ñu ñuy wax ak askan wi di saafonteeg askan wi askan wi lu ñu wax mooy élection par force askan wi waxuñu dialogue askan wi waxul amnistie askan wi dafa ne élection par force nañu déglu askan wi askan wi li mu bëgg a mooy élection askan wi nee na maki dégage askan wi nee na maki Sall li ko fi dese mooy 2 avril askan wi li mu wax mooy libere Sonko et tous les otages politiques askan wi lu mu wax mooy élection par force te nanguwuñu élection le 15 décembre 15 septembre 15 octobre 15 juillet 15 août 15 mai élection 25 février lañ ko am lii kon moo ñu fi indi ñu ngi laaj nag suñu chauffeur bi suñu chauffeur bi nañ ko bàyyi mu ñibbi muy daam a ah, libéré nañ ko ñu ngi may xamal ne libéré nañ ko suñu chauffeur daam léegi nag nañu libéré suñu oto nañu libéré suñu oto ñu ne libéré nañ suñu oto léegi nag nañu ànd libéré Sénégal Sonko libérez Sonko libérez Sénégal libérez Tëngéej libérez con kon ñu ñëwoon wax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci quai de Kech coalition la coalition Diomaye président était venue s'entretenir avec les populations de Rufisque pour les habituer au bulletin de vote de la coalition Diomaye Président du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quand nous sommes arrivés, la police a essayé de nous intimider en arrêtant notre chauffeur, en mettant des sabots à nos voitures et en disant qu'on avait besoin, en pleine période de campagne électorale, d'une autorisation pour distribuer les spécimens de notre candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce que nous avons refusé énergiquement et finalement, ils nous ont laissé battre campagne. Ils nous ont laissé faire notre itinéraire qui nous a amenés au marché, qui nous a amenés aux vendeurs d'oignons, qui nous a amenés à la rue Ousmane Sonko. Nous avons dit est inacceptable qu'un pays comme la Hollande donne des oignons au Sénégal alors que le Sénégal fait quatre fois la Hollande. Il est inacceptable, c'est ce que nous avons dit aux acteurs de la pêche que nous avons trouvés à ce, euh, à ce quai de pêche. Il est inacceptable que dans ce pays-là, Macky Sall brade la mer des Sénégalais aux bateaux de pêche européens, de pêche japonais, alors que nos, vendeurs de, nos vendeuses de ketchup, nos marieurs, nos pêcheurs de poissons. C'est pourquoi la coalition Diomaye Président dit pour une souveraineté pleine et entière des populations sur nos ressources, à commencer par nos ressources halieutiques, faut voter le candidat Bassirou Diomaye Il faut voter le 25 février prochain pour d'accord la coalition Diomaye Président. Nous avons dit aux populations qu'il est inacceptable qu'au moment où les Sénégalais n'arrivent plus à acheter le yaboy, que Macky Sall qu'il y ait des usines qui fassent des, euh, euh, des farines de poisson. Il faut 5 kilos de poisson pour avoir 1 kilo de farine. Farine de poisson, pourquoi Pour des croquettes pour chats et pour chiens. Alors que nos jeunes sont en train de mourir dans la mer parce qu'on n'a plus de poisson. Il est inacceptable que s'installe dans ce pays-là des usines pour faire de l'huile de poisson alors qu'il faut 20 kilos de poisson pour avoir un litre d'huile. C'est inacceptable et nous allons changer tout cela. Nous allons renégocier les accords de pêche pour les vendeuses de ketchup, les vendeuses de poissons, les pêcheurs. La campagne va se poursuivre. Soyez à l'écoute de la coalition Diomaye euh, Bassirou euh, président dans les heures à venir nous vous dirons ce que nous allons faire déjà demain il y a plusieurs manifestations déjà après-demain il y a plusieurs manifestations certains de nos compatriotes ont invité à la place de l'obélisque demain à 15 heures tous les Sénégalais n'ont qu'à y aller euh, y a-t-il y a-t-il un dialogue les populations leur priorité ce n'est pas le dialogue leur priorité ce n'est pas l'amnistie Vous les avez entendus. Les populations ont scandé à tue-tête Libérez Sonko, élection par force. Voilà l'agenda des populations. Et nous, coalition Diomaye Président, nous ne suivrons pas Macky Sall dans son agenda. Rappelez-vous, en 2012, il était allé battre campagne. Aujourd'hui, ce qui s'impose à nous, c'est un, de lutter contre le coup d'État de Macky Sall. Deux, battre campagne. Voilà nos deux priorités. Tout le reste, ce n'est pas notre discours. Nos deux priorités, c'est non au Sall pour des élections, pour une élection présidentielle le 25 février. Voilà.